ngeen jëf mboolem yéen a kaay ñu xëyandool bu ci dul le soleil stade wala waa sport ci Abdoulaye Wade nga xëy a Fara Wade njàkk a Wade njàkk Matar mi ci yokk Abdoulaye Wade nga fu nekk di liif-liif ak daraam observateur tax nañu Abdoulaye Wade takku na ba dëgër defaru ba jekk àndandoo ak i farandoom jëm ci kaw Macky Sall waa parti démocratique Sénégal ak seeni àndandoo meeting bi ñu fas yéene ngoonu tey ca place Obélisque journal bi dañu gaay yi bi yëkkati nañu fanweeri junni jox la ngir nga indi ci say militant ñi nekk ci biir dëkk bi ñu jox leen ñaar fukki junne gars yi ànd ak Karim Wade te ñu leen di woowee ay karimiste observateur nañu ñooñee moom kenn boolewu leen ci yëf yi populaire nañu Abdoulaye Wade ma nga jëm ci guerre di ak Macky Sall Abdoulaye Wade ki kàddoom ci xëtu njëkk journal bi mu ne dootuma dellu gannaaw te Macky Sall bu demee bay xuppaate xam na ne ak Abdoulaye Wade caaxaan Balde wala Idrissa Seck ba tey populaire di laaj ndax Abdoulaye Wade ki farandoom seen meeting bi ñu fas gonte tey jii ci obélisque la ñu ci bëgg danañu ko ci am lasiré kay bu ñu ko amul way mbay na leen leer na li mooy seen sànni tàccu te nag lu ne xaj na ca le témoin moom it la muy xëy di laaj moo di ndax ku jëkk politique geek nit ñi ñu bëgg a mobiliser danañ ko am enquête yéene kay nañu Abdoulaye Wade delloo na buum ca boy boy ba góor gi day wàccaat waaye bu gars fexe ba mobiliser lu rëy réew mi ko jënañu njiit réew mi Macky Sall fu mu jaar dana ko bàyyi xel meetingu parti démocratique Sénégal boobeeg seeni farandoo la mu làmboo dëgg le quotidien xëy nañu tojal yax bi libération nañu bu ngeen bëggee dégg-dëgg moo di ay waxtu yu néew moo de suñu digg ak meetingu front patriotique boobee waaye muy nguur gi di ku jëg politique yi ku ci toog ci nen du toj ku ca nekk yaa ngay fexe noo raweek noo rawale sa yëf wal fajir nañu biik gars yi meeting tey dañu doon daas fanaanal meeting boobeeg la ko sabab yéene kaay bi nañu bu weesoo mbirum Karim Wade la ci Abdoulaye Wade bëgg Alioune Sall meerub Géejawaay la mu bëgg xam nañu ko mi ngi ci direct info journal bi nañu weesuwul wut Abdoulaye Baldé ca bopp association des maires du Sénégal Alioune Sall ma ca ma ngay ci tuñ tuñ gu mitti ngir loolee mën a am te it ci lu kenn yëgul am nab daje di réunion secret boo xam ne moom Alioune Sall ma ngi ko def ca sali ga ca Mbour Mbour googee yéenekaay bi nañu maire ya fa nekk Alioune Sall fexe na ba ñu ànd ak moom ànd leen ak man ci le témoin Pape Ousmane Gueye mi ñu bi nañu teg nañu ko ko installé Walfadjri ne ko installé nañu ko teg nañu ko waaye sàgganul du fa yàgg ndax moom Pape Ousmane Gueye njiital douane gars yi bëgguñu ko foofee jamono ji ay ñaxtoo ki xunt yu dul jeex mu am ca kër googee di douane yëf yaa nga mel ni fu ab dëj am ne amicale des inspecteurs et officiers yu douane ñoo ne xamuñu lan moo tax ñu jël Pape Ousmane Gueye def ko njiital douane ñoom ñu beddi leen foofee beddi leen ni ci yeneen i poste te Pape Ousmane Gueye nekkatul ab douanier ne ba mu fa nekkee def fa fukkeet ak juróom-ñaar ca la fa jugee dem inspection générale d'État kon tey bu ñu ko indiwaatee ca douane googee ña ko def jubluwuñ ci dara lu dul yàq kër gi Pape Ousmane Gueye ca leer ne am kenn bëggul la fa li kenn bañul moo di Sénégal gay dem ci Coupe d'Afrique ga ci Guinée équatoriale istadine kay nañu waaye du yomb ci ñoom nag ndax li ñu xamagum moo di gaynde sénégalais ci Coupe d'Afrique boobee fu ñu jaar danañu football ak Ghana Côte d'Ivoire wala Cameroun Alain Sires mi tàggat gaynde sénégalais nañu ci biir l'Observateur ak lu man di xew loole lépp du problème nañu ñu ñu dimbali ba ñu am ay match amical laata ñuy dem ca Coupe d'Afrique ba lu mu laa di laa di Alain Sires na soxla nañu ci ñaar nañu ko benn bennal ba léegi des ci Observateur ak la xew ca kaso bu Kaolack benn waay bu ñu naan Amadou Tidiane Diallo moom la ñu fa tëj nañu ko tëjee neexu ko waa ji ne day xaru ni mu def yéene kaay bi dañu moo di ab lañsetam la jël dugg ca dossier ca kaso ba dagg arsenal juridique ba maanaam bagage di awraye moom la dagg ngir bëggoon a xaru